del déglu del xool Feeling Dakar site bi jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi pënd bi wureegul ci diggante ki nga xam ne moom moo di na Dieynaba Balde ak Bril foo journaliste bu mag bii di Babacar Touré dikkaat na ci coow li wax na mu demee lépp li ci sénégalais yi wax yépp dara ci amul moom Babacar Touré wax na yëf yi ak na mu demee journaliste bu mag bi ginnaaw ba mu defee enquête am ka mu gën a attaqué ci ay waxam mooy Ndeye Gueye Ndeye Gueye mi toogoon ci plateau Feeling Dakar doon xamal yëf yi ne nii la demee ba dal ci kaw Dieynaba Balde mel ni ku ko def benn ndaw soo xam ne tekkiwul dara ci mim réew moom Ndeye Gueye Babacar Touré taggaat na ko ciw àndam ne xamal ko ni ko Dieynaba Balde sàcc gi ñu koy tuumaal naan dafa sàcc Bril Fight Fo mësul am kenn mësuñu koo dégg ñu ne dafa sàcc moom Dieynaba Balde dafa soxla woon loo xam ne ay preuve la koy firndeel ni jiy Bril Fight Fo da doon dund ak moom di dund ak ñeneen ci gàttal Bril Fight Fo daf ko doon utiliser ngir alal gi nga xam ne moom la ko doon tuur ñu doon wax ni itam moom mi di naa dafay utiliser Bril Fight foo maanaam ci gàttal di ko santaane amul benn yoon moom Dieynaba Balde bi moo doon dundal ki nga xam ne moo di Bril Fight Fo moo daan jël alalam daa ko ko jo koo sàcc jëlee ko ci Bril Fight Fo oto yooyu yëpp Dieyna moo ko moom moom Bril am benn oto Babacar Touré leeral na yëf yi ba daal fàttali Ndeye Gueye ne ko yow mi ciy yenn wax yi dama laa bëgg fàttali benn yëf yoo xam ne amoon na fi te loolee mook Dieynaba Balde sorewuñu muy sa mag joojee ñuy wooye tabaara te tabaara mi la moo la dugal ci mbirum fecc gi nga nekk tey yow Ndeye Gueye fàttalikul tabaara ci circonstance yi mu faato woon benn waaj yoo xam ne da ko topp bëgg ko waral tabaara jékki-jékki waajooju ñu am ay jafe-jafe waajooju jàpp ko jamate ko sànni ko ci huitième étage ci noonu noonee la ñàkkee bakkanam moom mi di journaliste bi di Babacar nee na falaa yem ci wax ji Ndeye Gueye fàttalikul ndax am na fu ñu jaar xam naa bu baax say mbir enquête boobu mën naa ko defoon te bi ma koy def ñëw naa ba ci seen kër gi fare géejewaay def sama enquête ci boobu lépp jafe-jafe goo xam ne doxoon na ci diggante tabaara ak waayam jooju nga xam ne moo ko mujj woon a faat moom mii di Babacar Touré nee na jéy naa victime la te ki ko def victime mooy ki nga xam ne moo di Diop Iseg ba tey itam Bril victime te ba tey ko def victime mooy Diop Iseg Babacar Touré nettali na lépp na mu Safan ci gàttal dafa dugg ci yëfi caxat-caxatee li ci sénégalais yi doon wax ne leen nag li ngeen di wax xaaj bi amu ci nee na nag bis bu yëfi àggee fa mu war a àgg ba ma war cee wax lépp génn ay preuve danaa génn lépp ba ci bril fight foo am na foo xam ne Babacar Touré defiyee na ko xamal ko ne ko nag am na ci yoo xam ne bis bu génnee weddi ko man biir man mii di Babacar Touré danaa génn jox ko samay preuve ne ko tegal ci taabal ji leneen loo xam ne mën naa dindi samay wax kenn du dindi waxe Serigne Touba ki wax li ni mel di Serigne Bassirou Abdou loolu dara du ko teree am ci gàttal bu ñuy dund dañuy màggali même bu ñuy màggale di faatu sax dañuy dem màggali maanaam ci gàttal ndigalal Serigne Touba li bañ koo jëfe dee moo ñu ko gënal jëfe ndigalal Serigne Touba moo ñu gënal lu ñu am ci kaw suuf moom Serigne Bass Abdou Khadre ne lii ndigal la wax loo xam ne woon mu ngi bàyyee ko woon ci ku tedd ki di Serigne Touba ba tax na saa bu accepté kenn du ko teree am dafay am ca nam war a amee tey itam bu kenn tiit ci jàngoro ji moom Serigne Bass Abdou Khadre yemul ci loolu wax na ne xalif général des mourides di Serigne Mountakha Mbacké yëkkati na lu toll ci juróom fukki ñi nga xam ne ndox mi dafa nangu seeni kër foofu la ci Touba dëkk bu sell ba ba noppi itam teg ca nit bi fi mu toll ni xalif général des mourides li mu bëgg ci Touba mooy ñett yi la bëgg def ci ay yitteem bi ci njëkk mooy université bi taxaw ñaareel bi mooy ndox mu sell am biir Touba ñetteel bi mooy saabu tawatee bu kenn nekk ci jafe-jafe moom xalif général des mourides nee na ku bàyyi sa dëkkab maam ñëw ci dëkku maamu jàmbur dañ laa war a teral ba nga tedd danga faa war a dund dundin bu neex waaye nag neexu ko muy gis ñenn ñi ñuy génn ci seeni kër mbaa taw ñuy fanaan ci amul moom xalif général des mourides dafa bëgg loolu dàkk fi saasa ba tax na dana ci taxaw taxawaay boo xam ne saa bu accepté ñëpp dana njëg ni taxaw na ci ki taxaw mooy Serigne Modou Kara jël na beneen soxna soxna soo xam ne mu ngi ko jëlee ca Thiès kaay moom mi moo di Serigne Mbàkke ñëpp ko xam ci mim réew di sët ci Serigne Touba Mbàkke moom nag jël na beneen soxna ñu koy ñaanal nag barke ak tawfeex gu yaatu ci loolu mu dugg yees lu yees di beneen cas cas bu gën a critique cas Dieynaba Balde ak Bril Fight Foo la ñuy gisati ci Sénégal ab ministre maire boo xam ne dafay tëdd ab benn xale bu jigéen di ko teral di ko jox alal ak lool ak loola ci gàttal jëndal na ko sax oto bu bees tàq boo xam ne mu ngi koy jënd million ak ñett bu ñu sukkandikoo ci temps tànjan mi joxe bi lépp xibaar nee na ministre bi ab ministre la ba noppi itam ab maire la ba noppi itam moom moomee la may sol costume barewul ay grand bubu lay itam ci nord du Sénégal la nekk di liggéeyal Macky Sall moom ministre boobee jamono ji nga xam ne Sénégal dund ak ndox mi jamono ji nga xam ne Sénégal ñu ngi dund ak Covid 19 ji nga xam ne Sénégal yokku nañu fi dund gi ba askan bi di yuuxu mu war a wàcc liggéey defu ko nekk ci xale jigéen yi di si mane nga ñam ba noppi di yëkkati alal réew mi di ko ko jox ñàkk jom munte weesu loolu ba noppi tag ni tag ci nag ne yoonam nekkul ci réew mi moom na dund dundam gu neex moo xale bu jigéen boobee jamono ji nag ministre bi ma ngay si mane nga ñam na mu ko neexee ci xale bu jigéen bi la te saabu bu siimee mane nga ñam ak moom jox ko alal judul jeex kontaan Anne xamal seen doom mu ngi am teraanga joo xam ne mu ngi bàyyeekoo ci ab ministre seetlu wuñu ne mu ngi si mare ngàññam ci moom saa ko soxlaa rek mu fekk ko fa mu nekk waa ji def ca ba doyal jox ko alal ne ko wéyal jox say mbokk ku kande su amee mbokk nañu ko woo ñu conseillé ko mbaalu ko may dana fi wax waxi jëwi jofi dof moom ku kande mi nga xam ne la mitomaan lañu ko tuddee ki fi kàccoon ne dafay xar géej gi mujj taa génn ndànk moom ku kande mi le ci 2STV la daal di feeñaat ginnaaw ji nga xamee ne ci la ñuy amal Abdoulaye Diop Khass ku kande dugg ci émission bi appel vidéo la def jamono ji def appel vidéo ci la ko Bijou Ngoné laaj ne ko yow Umaro mi nga xam ne yaa ngi wax ak moom ana lan mooy sa problème ak moom moom Bijou Ngoné ba mu laajee dara ci ku kande ci Umaro ku kande yëkkati kàddoom ne ko bul ma tuddal ñi nga xam ne ay borom ñaari tuur lañu ku dem na sax ba naan Umaro ci boppam maa ko ëpp daraja maa ko gën a yéeg fi mu nii ndax man fi ma toll nii ji ñu fi menacé ba noppi jàpp ko teg ko loxo mooy Julio moom mi fi raboon tarixa moom Julio moomale ginnaaw boo ñu ko fi menacé arrêté ko ngir waa dig ñoo defoon li mel daal di koy laaj ci ana lu waral nga woy woy bii di tarixa tarixa bu ñu dëgloo woy bi lañ cay gis mooy dangaa bëgg a taxale yi nekk ci Sénégal ci gàttal dangaa bëgg a indi fantasiro murit yi xëcc ci fële tijaan yi xëcc ci fële xaadir yaak laayeen kenn ku ci nekk bokkutu ci sawruku fantasiro tàmbali fa am Julio xanaa xamuloo ni Sénégal yenn yi xaju fi dañoo bëgg Sénégal ñëpp nekk ci jàmm maanaam cohésion sociale gi am ci tarixa yeeg diiney Sénégal ji bul ñu ko yàqal moom Xulyo mu daal di ni loolee lépp dara amu ci dafa am ñenn ñoo xam ne xeex ma rek lañ ci jubloon moo waral ñu dagg parti yi nga xam ne parti yooyu ci laay waxee yenn wax yi nga xam ne dangay jàpp ne damay xeex diine mbaa tasaare li nga xam ne moo di kërug diine yi fii ci Sénégal jural leen aw fantasiro moom Xulyo jox na ay joxe na ay explication ba noppi itam ci génn gi mu génn ba ko bàyyee ci ndungu sin ga mu nekk a du tëdd ci yaatal waaye daal li ma mën a xamal samay fans ak ñi may topp saa ne nañ ma xaar ak beneen clip boo xam ne dama koy génn te clip boobu clip bu yees tàq la nañ ci déglu lu bari lu ma ci war a wax clip boobu mu ngay war a tudd identité moom xul yoomi dana génne ci beneen son bu bokkul ak tarixa ginnaaw bi mu génnee son tarixa mu def attaque lu topp ñu daal di ko ciy fat ci kaso bi ñam ndungu sin génnaat jamono ji sous contrôle judiciaire ginnaaw aawa gëm fi ngénte woon bu yàggul dara na ca ñaareel ba ñaareel ba doom ju góor la ko indil mu tuddee ko Mouhamed Al Bachir ngénte la nag soo fa demee daa fa fekk ngénte loo xam ne ngénte lu neex la ngénte royal defal na ñaareel bi sañse yu baax moom itam mu sañse ay sañsem yu baax ay mbokkam ak i jeganaalem ak i xaritam ñëw teewe ngénte li mu daal tudd doomam tuddee ko Mouhamed Al Bachir boobu lépp ngénte soo leen xoolee ci image yi di ngeen gis ne Cheikhou Kouyaté teral na ñaareel bi teral aawa bi ba noppi itam teral ay dëkkandoom siggil ko sagal ko siggil ko sagal ko moo di capitaine équipe nationale bi wane na ni saa su nekk ci différence lay dox ci gàttal mooy le capot des joueurs du Sénégal le capot de la musique sénégalaise mooy Sidi Diop Sidi Diop miñ ne woon dafay way wayu ñëpp maanaam ci gàttal wayu ko mu jàpp wayaat ko moom Sidi Diop du ma sa créer ginnaaw bañ ko fiy waxal waxam yooyu le mu jékki-jékki di créer ay jaago baas génneeti na yeneen fecc yoo xam ne jamono ji la mooy def buzz ci réseau social bi bu ci mel Naba Jolle ak Jéere Sidi Diop Sidi Diop gonek banlieue yëngal ca na mu ko waye woon maa koy yëngal gi mu waxoon jamono ji ma ngi koy yëngal ca almadi boîte bu mu dugg ba génn bàyyi fa doom bàyyi fa coow moom Sidi xam ne dañ ko daan tuumaal ne day woy woyu nit ñi ci gàttal na woyu ñëpp Waali way na ñëpp Youssou Ndour way na lépp Sidi Diop génn na ci boobee léegi nag Sidi Diop ma ngay woy ay woyu boppam bàyyi woyu gaay yi ba noppi itam di créer ay fecci boppam di def ji ci internet beeg fu ci nekk Fatou Aline Badara Cissé def na buzz ci nga xam ne moo fi nekkoon jëw jëwriñ ji ñu dénkoon mbirum étranger fii ci Sénégal ci nguuruk Macky Sall mu jóge ci ñu daal di koy jox médiateur de la République ay kàddoom yu rafet jëfam yu rafet li nga xam ne taxawu na ko ci Sénégal tax na ba ñëpp di ko jooy moom Alioune Badara moomee ñi bokk ci ñi ko jooy mooy Père Ouza Baye ci Adji Ouza Adam Sène di buy nga xam ne ab Saint-Louisien la Abdou Kité Seck moom itam jooy na ko ndax moom it Saint-Louisien la ñoom ñëkk ñu bokk ci benn ñi doon taxawu seenum réew maanaam Sénégal jooy nañu ki nga xam ne moo faatu dëddu woon leen ginnaaw Aline Badara Cissé moomee dencu nañu ko ca Touba bu sell ba ca cimetière yooyu di bàq ya bi fukki waxtu ak juróom-ñeent da jotee ci lañ ko foofu la ca Touba maanaam timis lañ ko fa denc ci jiite julli gañ ko doon jullee mooy Serigne Fallou Mbacke Abdou Khadre di imam waaye itamit ci bi nga xam ne mooy xalifab Serigne Abdou Khadre Mbacke ñu gën koo xam ci Serigne Cheikh Mbacke ibnu Serigne Abdou Khadre Mbacke ñi nga xam ne ñoom la bokkaloonub liggéey moom Aline Badara Cissé di ñi nga xam ne ay avocat lañ ñooñu jooy nañu ko génn ci moom ay seede yu rafet seede yañ ko seedeel wane na ni moom Alioune Badara Cissé dem na te dootul ñëwati jàmm gi nga xam ne moo war a am ci géewug politique gi mbaa dina ñëwati gannaaw ba mu demee bu yàgg jàmm ji war a xew ci géeju géewug politique ci xew gi ñu ciy nemmeeku tax na Serigne Mbacke Ndiaye mi fi woon ci nguurug Abdoulaye Wade jamono jile mu ngi àddu xam le ni nguurug Sénégal dafa war a taxaw ci woo képp ku bokk ci géewug politique ñu toog ñoom ñëpp ñu fal kenn koo xam ne dañu koy def médiateur ci wàll bi ni ci gàttal benn médiateur lañu xam ne médiateur ci wàllu politique la ñuy soxla koo xam ne dafay benn leen nitug politique mbaa dina yomb Serigne Mbacke Ndiaye loolee lay sàkku ci nguurug Sénégal ñu daal di koy def ci gën mu gën a gaawe ñiy def enquête ci mbirum building administratif bi fi tàkkoon bëccëgu naru kàmm fi ci Ndakaaru Ndiaye war nañu cee gaaw ndax enquête boobu ndaxte building boobu le lakk gi mu lakk waxuñu waxuñu nit ñi la nekk ci biir lépp ndaxte building bi gannaaw ba mu lakkee jot nañu xayma lam fa jot yàq te bañ ko xayma daanaka mat na ay milliards ci moo xam ne jamono jile ñu ngi jooytu ndax dund gu seer réew xam ne jamono jile di joytu ndax li nga xam ne moom di covid ak ni mu fi tàmbalee def inondation yeeg ya ca aju kon nag ci gàttal askanu Sénégal soxla nañu saa su nekk nguur gu leen di wax dëgg lu mën a xew ñu ne leen nii la demee lépp ñu daat leen koy tegal te bañ koo yàq lépp ñu daat leen koy tegal te bañ caa nekk di ko caxat-caxatee mbaa di nëb boo ko nëbbatu ak seen bi ñu ndëbbul seen doole mooy gaynde Sénégal yi waa Afro Basket góor gi si Dieng ak ñi mu àndal daal dinañuy napaaje yi gaynde Cameroun yi ñu wooye indomptable maanaam ci gàttal dégguñu jot teranga yi fexe nañu ba ñu dégg jat ndaxte ci seen match ga ñu doon amal gaynde Sénégal yi ñetti match ñetti ndam la tegale 98 dóor camerounien yi 98 na ni ponkal koy éliminer Sénégal dafay daal jàll ca quart de nationale ñu jàll ci ministère de la santé et de l'action sociale jëlil leen communiqué bi nga xam ne moom la génn tey ci lundi bi 30 août ci 2286 yi ñu jot a def 44 ñoo mbas mii di covid am ne dafa bawoo ci fafal naaw gi tàbbi fii ci Sénégal mbaa nga jaar ci buntu suufi dugg fii ci Sénégal 38 cas communautaire la ñu amee mooy ñi nga xam ne mbas mi da leen a dal te xamuñu fan la leen toppee lu toll ci 458 patients te ñu woppoon faj nañu leen ba ñu wér ba ñu war doxi seeni soxla delluwaat ci seeni yitte 35 cas grave jot am jamono ji ci lalu réanimation yi foofee ci l'hôpital ya 11 décès la ñu démb ci dimanche gi 29 jamono ji fi mbas mi duggeeg léegi nag 72 jot a déclaré ci ay cas positif fii ci Sénégal ñu daat leen di faj ba ñu wér doxi seeni soxla 1760 ca seeni bakkan Sénégal nañu sàlloo mesure barrières yi takku masque raxas suñuy loxo ndox ak saabu mbaa bu am eau de javel mbaa sax ñuy jëfandikoo gel hydroalcoolique te itamit nag nañu wàññeendiku lambar lambar gu bari gi waaye itam lépp loo xam ne raj-raj loola nañu koy daw te ñu sàmmanteeg distanciation sociale yi ndaxte nag jàngoor ji mu bawoo fi la ñu bëgg màggal gi nag dee màggali dund màggali dafay neex ba aljana rek na ko sëñ Muntaxa di waxee jërë ngeen jëf ba subaak jàmm